paree ci meeting bi dañoo am a big musical jamboree ñu ngi oo ñëpp bàyyi si kenn ñu ngi wax ñëpp ne ñëw Banjul lekka free la ndox free drinks free maa ngi oo ñëpp pour ñu atten ko ti turi too bi jërë yéen jëf mbaadiŋolu mba moo bee kumandi la eh, na sio daliloo pour kana ka fo moo bee le doron pour nga naanaŋ soomalon na last date ñin to kono ɓe minna min to ka fo mi e vision 2016 somele ñanta laban na banjol oɗon ɓe mo be kumandi la pour mo be nanan ga den gallamoye président ola ay kibaro min soɗo gambia ɗiŋol ye mbegal ne ko kibar ken dolom do mo jama ba lamoye kanne bare ɓe min kela banjol aɓe mi fola banjol kole moma womoye folo so woton ɓe mo be kuman la pour mbega ɓen july 22 square talan nani aɓe commence lawol to fo talan nani somanda o kam allah fanan mbawi tan lammol beelale ko nimmitino peut être don ɓe musical jambori kela kabdi o mitino ban wato fo somanda domoroɓe jeele poupay momo naate ɓe domoro kelale mo naate ɓe minnale momo naate ɓeɓe drinks fana minnale mbe mo be commandila pour mbega ɓen july 2 second squaya sooma arami so 4 pm to 4 am ala baraka Música Gambia eh, ñi ñoo toppa ci Gambia Radio and Television Services ci jamono ji ci biir réew bi fii ak bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen tatagal ci jotaay waxtaan bu am solo bu am maana boo xam ne nii fas ina lañ leen ko diktal si ci ay eh, minutes yu néew ci kanam su ko defee rek seen jotaay yu tedda yi fi ngeen nekk foofu ngeen taaxeerlu eh, di xew-xew bu am solo bu mag bu rëy bu xam ne nii su neexee yàlla réewi Gambia moo ko dalal loolu moo di lan moo di lu ñu xamee ci International Roots Festival ren di fukkeeli at ak benn bi nga xamee ne ni nguuri Gambia commencé nañ di def eh, International Roots Festival ci réew mi fii ñaari at yu nekk lañ ko def ci réew mi di ko màggal suñ ne nag International Roots Festival eh, loolu moo di lan dinañ ci gën a xuus ci waxtaan wi xamal leen ko ak itam bés bu màgga bi programme bu rëy bi bu am maanaa bi ci réew mi fii ci wàlli dundini aada ak cosaan ak itam li nga xam ne ni moom lañ fekk baax ak ñi nga xam ne ni ñoo nekkoon fii ci réewi Gambie ak réewi nit ñi ñuul ñi jógee fii gongeeku dal di dem bitim réew nekk fa te ñi bugg xamaat seen cosaan bugg a xamaat fi ñu fekk baax bugg a dellu siwaat fi nga xam ne nii foofu lañ cosaanoo moo tax programme yi Root Festival bii jóg waaye nag loo gis rek dafa am njaatige dafa am njiit dafa am kilifa ban liggéeykaay nguur gi ñoo ko ŋànka moo di ministre bi nga xam ne ni ñoo saytu wàlli aada gi wàlli cosaan gi ak itam wàlli eh, tourisme di gan yi nga xam ne nii ñooy dugga si ci réew mi fii ñoo xamee leen ci ministry of tourism and culture jiite ko di honorable Fatou Mass njaay waaye lii yëpp mu ngi am ci kilifteefu nag his excellency président réew mi cheikh professeur docteur alhaaji yahya AJJ Jammeh ngir li olof njaay di wax rek moo di ne li yëngu li ko yëngala ko ëppa doole e balaa maa dugga nag ci waxtaan wi tey am naa fi ñi nga xam ne ni e, ñoom la e, nguur gi tànn pour ñu saytu nag doxal programme bu mag bii ñu xamee leen ci organising committee e, jiite leen nag di honorable Fatou Mass Diop Njie waaye terewut ci ndigalam kilifa yooyu leen ñëw nañ fi bokk na ci di honorable Souleymane Diouf député la ci Serekunda West am fi itam Moussa Mendy moom itam mu ngi liggéey ci fànnaay éducation nekk itam committee member am nañ fi faatu njaay Ndiaye Fofana Jaaju si di deputy women's mobiliser bu parti APRC toogal fi Aysatu Jifanga Jaaju mi nga xam ne nii mooy national women's mobiliser ci parti bi am nañ fi itam keneen ku ñoo eh, kuy bokkasi ci waxtaan wi di ajaratu Mbéri Sow ñii ñoo fi ñëw ci tur yi ñi nga xam ne ni ñooy organising committee bi ak man ci suma wàlli boppa eh, jiite waxtaan wi waaye nag duma guddal wax ji eh, du ma def dara rek lu mooy gannaaw bañ leen nuyoo tatagal leen ma bàyyi leen ak suñ kilifa di député di honorable Souleymane Diouf mu ubbi waxtaan wi honorable fi mu nekk ñu eh, international roots festival bu mag bi nga xam ne nii réewi Gambia su neexee yàlla dinañ ko def dina wara tambali agi ajjuma bii di ñëw di juróom-ñeenti fan dem ba fukki fan ak juróom-ñaar ci weeri tubaab yi ñu programme bi lan mooy jubluwaay bi ak itam naka ak lan lañ ci séntu juuf. jërëjëf Alhaji Modou Diouf. ni ko la. Root Homecoming Festival International Root Homecoming Festival te yàgg nañ di ko def ren mooy fukkeeli yoon ak benn di nekk di edition waaye ni mu ko waxee jubluwaay bi rek mooy dafa am ñoo xam ne fii fii lañ sampoon baax fii lañ fàqee ko dañu ngi tasaaroo si àdduna bi waaye foog ñu dellu si fii topp seen ren te jubluwaay bi mooy dafay boole ay askan boole ay nit daan na xew naam waaye ren am nañu yaakaar ne ren la gën a ren laa gën a rëy loolu mooy jubluwaay bi bi ko ñun ñëpp xam nañ ne ki nga xam ne moo nekk ci boppa bi nekk di minister responsible for tourism and culture eh, di faatu Mass Diop Jaay ku am sawarte la ku am pastif la pare am nañ yaakaar ne liñ jot a gis ci pare as bi loolu wone na ne ren dina rëy loolu su ma leen bëgg a jox rek eh, rundown yi programme bi eh, ajjuma su may boo nag ajjuma laa commencé bi moo commencé ajjuma mooy ajjuma dinañ def ay ñaan ci